وجهت وجهي ذا قرب من الله بجاه أحمد ذا سوق إلى الله الله أكبر مما كنت أفعله ولست أخشى ولا أرجو سوى الله war ginnaaw waaye ñu dellu si waat nag ci sëriñ bi ci boppam jamono bi mu nekkee fii xissa bu siw boobu histoire bu siw boobu ci euh, euh, soldat soosu commandant Lukki jebaloon mbaaxaan ñu ñëw fi ci tuuma yooyu ñu déggoon ci sëñ bi ci ne dafa yor ay ngànnaay day waaji jihaad day préparé nangam nangam mhm. euh, xissa boobu itam bëggoon naa ñu dugg ci tuuti bala ñoo ñëw ci waaw loolu day am na solo ndax kenn mënta waxtaan daarul manaan te mhm. tuddoo xew-xewi daarul manaan bi mhm. te xew-xewi daarul manaan yi bi ci gën a am solo mooy bii nga junj te loolu li ko waral mooy dafa am lu ko jiitu mooy bi sëñ bi ñibbisee ak ndam li mu ëndaale mbooloo mi dafa gën a bari <coughs> euh, taalibe yi gën a gëm seenub sëriñ gën koo bëgg euh, succès sëriñ bi gën a yaatu ci réew mi ciwte gi ak njariñ li gën a tasaaroo mm-hmm. tax na mbooloo di fàqe fu ne di ñëw di ko seet si juróom benn weer yooyu mu def fii mën ngaa xam daanaka adduna bépp ci réew mi fekk nañ ko fii mm-hmm. loolu nag jur nag wala juraat nag yi nga xam ne moom la juróon ci ci xëy na maanaam jalbeenu géej ga mooy ñaan yeeg ak soxor yeeg yu mel noonu mm-hmm.